mbokk yi ànd ak seen chaîne bi di xam sam réew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziara amaan mbégte dellu si ci fanweereelu pàcc ak juróom benn ci mboorum dameeli kajoor yi di ziare bokk yu nuy safoo di safoo chaîne bi di ànd ak ñun fu ñu mën di toll ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew di jiital ci ziare bi sëriñ Njili Maxtaar Mbakke moom sëriñ Modou Maxtaar moom sëriñ Cheikh Balla di topp fu mu toll waaye di ziare itam sëriñ Abdou Aziz Touré ak mbokk yi nekk États-Unis te sëriñ Bamba Mbeng jiite leen ci kippaango googu di support xam sam réew ñu géré Serigne Bassirou Fall ñoom ak Serigne Thioune ñoom ak mbokk yëpp mbokk yi àndoon na ma ak su ma juumul ba ci fanweeri lu pàcc ak juróom ci mboorum dameel kajoor yi dameel maa joojo tubaab yi folli nañu ma ko du fal ko Lat Joor këf na nguur gi tuwaab yi jàppale nañ ko tubaab yi ko jàppale woon nag bi Lat Joor waajaatee ngir song ko dañu waxoon tubaab ya wallu ni leen delluwaat leen Kajoor Ram Xëy ak Majoojo boole nañ seen doole ak capitaine Laurent ngir song Lat ca ngol-ngol fanweerul pàcc bi ak juróom capitaine Laurent ma ngay nettali ni mu gisee xeex bi ñooñ la joor ñoo leen ëpp fuuf wër nañ leen ndombo xeex bi nag doole yi tollootul Sébastien bi nga xamante ni bii mooy nettali nee na capitaine Laurent ak capitaine Chevrel bi nga xamante ni moo jiite woon tirailleurs yi nee ñoom ñaar ñaari capitaine yooyu ñoom la njëkk dal ci seen kaw capitaine Chevrolet moom dañ ko gaañ waaye nee na gaañ gi ko gaañ teewul moo capitaine Laurent ñi wane njàmbar ànd ak seeni soldaar ci ak njàmbaar ba ni ñu faatu ñoom ñaar ñëpp ak ni ñu faagaagale seenub xare ne na xeex nañu ba faatu ñoom ñaar xare bi ñu àndaloon itam Lat Joor faagaagal leen ñoom tubaab yi ñooy nettali de niñ leen la Joor def nee na juróom-ñaari kanu yi nga xamante ni ay kanu lañu yoroon ak adjudant biñ doon wax Guichard ñoom ñëpp ñi ñoo mel ni ay weñ juróom-ñaari kanu yi ci seen kaw kanu ya lañu dee tëdd fa ak adjudant Guichard peloton Espace bi nga xamante ni bii tampaloona ak ñooñ la joor am nañu jafe-jafe ak soldaaru su Joor ci ndax song gi ñu leen song waaye nee nañu teewul ñoom lañ doon xintewoo mooy jéema wallu damel maa joojo ba du faatu nee na kon peloton espace yooyu ñoom ñoo song ñooñ Lat Joor rek ci ak roofoo ngir mën a génne Damel Majoojo ci xeex bi loole loolee nag fexe nañu ba mu jàpp ni ñu daal di rocceeku dellu ngi gis waaye ñoom peloton espace boobu wallu Majoojo ba génne ko yóbbu ko ngi gis seen kilifa ga leen jiite woon doon lieutenant Dupont moom faatu na ak ñeenti espace astafurla ñu ni bon euh, espace yi fexe nañu ba génne ndàmmeel Maajojo ci xeex bi waaye ñoom kat fekk na seen kilifa ga leen woon ñooñ Lat faat nañu ko ñu ni nag sous-lieutenant bi ñu doon wax Dupont de Saint-Victoire moom ak ñeenti espais ñoo ànd ak dàmmeel di daw ba egsi ngi gis ak juróom-ñetti espace yoo xamante ni bii dañoo am ay gaañu gaañu nee na ñooñ la joor topp nu di rëgët di daq ba egsi ngi gis nee na bi ñu egsi ngi gis na te fekk na amoon nañ kanu yu fa nekk nee ñoo ñe ñoo soqi ñoo tax ñoo la jor duggu ñu ngi gis waaye nee am nañu ñu nu faat sax ci ñoom ci fan wéri fan ci wéru décembre atum junneeg juroom ñetti témèr ak juroom ben fukk ak ñett 30 décembre 1863 ñu ni nag ci ñeen ci téeméer ak ñeen fukki soldaar yaa xamante ni bii moo doon xareb bi di colonne bi ñaar fukki espace rekk a ci des kon Lat Joor faat na ci Lat Joor rey na ci tubaab yi téeméeri tubaab ak ñaar fukk ñoom day ñoo daan def ku ñu songool loo leen reyal ñu wàññi ko ñoom yokk lañ la reyal waaye fii de ñoom ñoo wax ni ci sunu téeméeri soldaar yi ak ñeent fukk ñaar fukk espace rek ñoo ci des te nee na ci ñaar fukki yooyu fa des juróom-ñett yi dañoo am ay gaañu gaañu ak ñaari officier ak benn docteur ak juróom-benni tailleur euh, euh, yoo xamante ni ñett ya dañoo gaañu kon loolu yi la leen Lat yor def ca ngol-ngol waaye ñoom tubaab bi ñoo wax ni Lat Joor nag toroxal googu munu toroxal bom googu mun bom munu bom ñetti xare yooyu nga xamante ni benn baa ngi doon dellu gore ñu ni ko dëppal bàyyi ko ndar ak ba bàyyi ko njàmbur bi nu Lat Joor toroxalee so ñoo ñu ngi jog jëm ci ci mom neena la jor Joor fa bàyyi ak suñu neew dal di dugg Bawol waaye nee na ba mu duggee Bawol toogu fa ndax dafa waññeeku ñëw fu ñu wax ngol nekk ci geet geet googu nga xamante ni nag mooy cosaanu Lat Joor mu ni nag musiba moo mënul dal muy malheur boobu nga xamante ni bii ngorog sunuy soldat rek muy ñaar fukki yi fa des moom rek moo fi des maanaam ngor gi mooy xeex nañu ba ñu reyal leen ñaar fukk téeméer ak ñaar fukk waaye ñaar fukk yi fi des seenu ngor ak seenu njàmbaar ci loolu nag nee nañ ci lañu soññaat seen troupe yi seen xare yi ngir ñu dem ñi gis te buñ demee ña leen colonel la laprade jiite mu mel ni tubaab yi ñuy wax ni Sàmba Maram Xëy ak Majoojo buñu xaaroon walli yi kon mbir mi du demee nii waaye ñoom ñoo wax capitaine Laurent ni ko ñooñu jëruñoo xaar bu nu àndee Lat Joor du doy nee na ba ñu dajaloo ngi gis nag ci njiitul La laprade ci lañu dem toppi Lat dugg Bawol fekkuñu ko fa bi loolu biji nag bi ñu janvier atum jooni ak juroom ñet téeméer ak juroom ben fukk ak ñent ñoo wéy di top la jor top gi nee na ñoo ko ci juroom ñeenti fan ci wéru janvier ci at mom sunu xare ak sunu machine fukki fan ak benn machine mi ngi ci wetu sagata nee na foofee dañ leen xamal ni Lat Joor de fi mu nekk fi ngeen nekk ci kilomètre lay toll te moom day jekk na pour xaar leen fa nee ci suba sa ci fukki fan ak ñaar ci weeru janvier ci suba gi dina la parade nee na bi nga xamante ni bii sama soldat si sonn nañ ma may leen ñu noppalu bis nee na ci la waajalaat samay soldat ngir nu toppi Lat Joor nii laa waajale sama xare nee na yebal naa ay rek ay éclaireur yoo xamante ni ci gawaru silmax ak jàng lañu bokk ak benn peloton bopp juróom fukki làppatoo ak ñaar fukk ouvrier ak juróom di nit ñu ñuul ñu mel ni ñu doon jàppale Laurent ak ñaar téeméeri soldats d'infanterie de marine ci njiitul commandant Barolé ak ñaari officier yu nekk ci wet yi ak juróom fukki soldats yu terrain euh, d'artillerie xamante ni ku ñuy wax capitaine la personne moo leen jiite ak téeméeri soldat compagnie disciplinaire du capitaine Balou Maintenant, nous ki noonu nag sunu convoi bi ambulance ak ñaari officier mooy ñiy téq sanni, nga ngànnaay doon ñu wax ay obi ak ñaar téeméeri nit ak juróom fukk yu bokk ci bataillon des tirailleurs sénégalais capitaine Ringo jiite leen ak juróom-ñett fukki spahis yoo xamante ni capitaine Bousin moo leen jiite dana gawar gi bàyyi ko woon jolof ànd ak volontaire yi nga xamante ni moom laa leen ni ñoom ñooy ñi nga xamante ni saa fu ñu masaan a dégg ab xare dañuy gàdd seen fetal rek bo xare ba jeexee luñ fa jëlé ci alal ñu sédd leen volontaire yoy nak ñom waru ñu won dañu doon dox and ak gawar gi nga xamanteni ñom ñoom ñoo bàyyi ko ngir ñoo jappalé euh, tuba bi mbokk yi loolu moo doon xareb ngol-ngol ak la ci xew ndax xare bi nga xamante ni la laprade mu ngi koy waajal fayu gi nga xamante ni tubaab yi bëgg nañu koo fayu li la leen dal ngol-ngol ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre xare bi moom lañu ngir fayu la leen la jor def ca ngol-ngol kon xare bi ci topp di xareb Looro nga xamante ni ñoom tubaab yi am na ay ngànnaay yu amoon France yo xamanteni dañu téré won kuko jëfëndiko fofu ci tugal mom lañu dem jëli mom lañu indi du won yoon ngir ñu jëfëndiko ko way toroxal gi leen la jor toroxal metti na leen ba lu ñu mëna def di ci wax tous les moyens sont bons ngànnaay yooyee moom lañu indi moom la jëfandikoo ci xareb looram kon ba léegi noo ngi ci dammeelu maajoojo Lat këf ndammeel gi tubaab yi tegaat ko fa waaye Lat Joor bàyyeegul toroxal na leen mi ngi geet tubaab yi ñu ngi waajal xareb looro kon xam naa ni fanweereelu pàcc bi ak juróom-ñaar dama leen di indil xareb looro bi nga xamante ni ba ci Lat nag ci la gàddaay yi dem fekki tafsir ma ba jaxu ba Saalum majooju jooju nag nguyaay dese kajoor amatul lu muy tiit ci ndàmmeelam ndax la Joor ma ko doon songu gàddaay na waaye ndax tubaab yi li ñu bëggoon ci maajoojo ba tax ñu fal ko dammeel am nañu ko walla amuñu ko dangeen ngeen nuy topp ci fanweereelu pàcc bi ak juróom-ñett kon maa ngi leen di sant di len gërëm di len jox dox daje ci fanweeri patch bi ak juroom ñett maa di len ñaax rek ngir ngeen abonné ci seen chaîne bi di xam sa rew TV man ngeen tabitam, ci itam ci kippaangoog ñii safoo xam sa rew ci Facebook bi ba vidéo bu ñu dugg rek ngeen am ko kon maa ngi leen di sant di leen gërëm ci ànd gi ngeen di ànd ak. ñun fu ngeen tollu di leen jox dox daje ci fanweereelu pàcc bi ak juróom-ñett